mbokk yi nag ñu daal di ñëw nag kon ci li nga xam ne mooy mooy mooy digle yi wala tegtal yi nga xam ne daal ku jëfandikoo portable wax nañ la ne war ngaa moytu lii war ngaa wala war ngaa def lii ci loolu dañ ne képp kuy jëfandikoo téléphone portable na nga moytandikoo di ko teg sam nopp waxtu bi nga xam ne yaa ngi connecté wu maanaam soo bëseem numéro na nga ko bàyyi ba mu wër ko ba sone nga doo ko teg sam nopp wala nga bàyyi ba mu sone ba kooku décroché ndax bu décroché da gis mu commencé def comment compteur bi commencé daw su boobaa nga dog ko yëkkati teg ci sam nopp waaye composé numéro bés la daa teg sam nopp warut danger la ndax waxtu woowee téléphone ci li gën a yónnee ay onde dañuy wax onde haute et de basse fréquence onde yooyu day bari bari koo xam ne ni baaxul ci yóor ñi ne itam kooku man bul weesu ñaari minute téléphone saa booy woote bul waa weesu ñaari minute su la nit di woo itam bul wee bul weesu moom ñaari minute ñi ne booy téléphone itam na na nga bàyyi ba nga xam ne réseau bi fees na moo gën ndax réseau bi bu feesul téléphone bi li muy yónnee ci ay rayon lim ciy tasaare day bari lim ciy wut tam day bari moo tax boo fekkee réseau bi dafa faible vraiment bu dee téléphone bu dee bu dee loo war a wootee loo xam ne mën naa xaar ba ci kanam da ngay xaar ba réseau bu fees ba baar yi mat sëkk li ñuy wax réseau bi plein ñu ne naan bu dee téléphone boo xam ne ngaa yor casque nag te téléphone bi am antenne wala nga xam fa antenne ba féete nanga nga moytu fil gi de laal antenne ba ndax loolu mën na waral fil googu jël courant bi ci antenne bi di koy ñuy ay micro yéegal ko buuti sa bopp téléphone boo xam ne itam maanaam jëfandikoo woo ko comme dafa fay nii wala da ko yor daal nga xam ne woote nañ ñu moytu di di ko teg mu féete suñu xol nañu moytu itam di ko teg muy laal biiru jigéen di wérul nañu moytu di itam muy jege ab liir wala gone gu ndaw di tàmbalee jumu xam wuti suuf bu ko mënee sori sax lépp li gone moo gën bu dee góor itam moytu di di ko def ci poosu